asalaamaaleykum wa rahmatullah Touba ci kanam ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziare bu baax euh, di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi lool di sant mboolem waa Touba ci kanam commission des finances sous commission gestion des fonds ñoo leen den ñoo leen doon indil bilan financier bu mois d' avril euh, li nga xamante ni moo jot a dugg ci compte Touba ci kanam ci mois d' avril ak li ci jot a génn euh, li ci jot a dugg Touba lañ koy tàmbalee ci mois d' avril dugal nañ cinquante six millions huit cent quarante neuf mille cent francs du ñàkk ñu mën cee ñu mën cee tudd jàmbaar yi nga xamante ni ñoo gën a fës ci collecte bi ku ci mel ne soxna bint Sarr dugal na ci 4 million cinquante mille soxna Mbayang Diom dugal na 4 millions cinq cent quatre vingt mille soxna Bintu Mbàkke moom Sëriñ Abibu dugal na 5 millions fédération yoon daaru ci njiitalu soxna bu Seen dugal nañ 1 million 2 mille fédération jannatu soxna Maam Marème Mbàkke dugal nañ 1 million trois cent vingt et un mille soxna Fat Ja Mbàkke moom Sëriñ Abibu dugal na 1 million trois cent cinquante mille camion écran bi nga xamante ni moom la Touba ci kanam yor ñuy def collecte ñaar dañ ci am ci Touba euh, benn bi dugal na un million benn bi dugal un million cinq cent quarante quatre mille su ko defee Baye Modou Mbaye dugal na deux millions sept cent cinquante mille soxna maam Awa Touré dugal un million soxna maam Fatim Mbaye mu sëriñ Abibu dugal trois millions deux cent cinquante mille su ko defee dañuy dem Mbàkke ci njiitul soxna Dior Gueye ak soxna Ñaaw Mbàkke ñoom dugal nañ six cent trente cinq mille Euh, plateforme Wave bu tubaat ci kanam li nga xamante ni jot na koo dugal ci mois d'avril toll na ci douze millions cent soixante-quatorze mille cent soixante-sept bu ko defee bu dee numéro soixante-dix-huit cinq cent quarante-quatre trente-trois trente-trois Wave bi dugal na trois millions cent mille plateforme bu Orange Money euh, Touba ci kanam ci mois d'avril dugal na un million mille neuf cent bu dee application bu Touba ci kanam li ciy jaar toll na ci cent trente mille neuf cent vingt six dañuy dem Dakar ci njiitalul Baye Serigne Bousso ak Serigne Alaaji Ndaw ci mois d'avril dugal nañ quatre million cent cinquante deux mille Kayaar ci Soxna Aswaaj dugal nañ trois cent mille Thiès ci njiitalul Serigne bay Sall dugal nañ un million six cent mille département Dagana ci njiitalul Serigne Aliou Ñing dugal nañ trois cinquante cinq mille Diourbel ci njiitul soxna Ndeye Ndiaye Manel ak soxna Daba Mbacke dugal nañ million cent trente mille daayira Baabul Ayaadi ba nekk Fuuta ca añam dugal nañ soixante quinze mille Saint-Louis ci njiitul Serigne Ridial Seck ak soxna Rama Fall dugal nañ trois cent quarante mille Kaolack ci njiitul Serigne Moustapha Touré dugal nañ un million cinq cent mille Kébémer ci njiitul Serigne Góor Sylla dugal nañ un million soixante sept mille Kédougou ci njiitul Serigne Modou Lo dugal nañ quatre cent quatre vingt Joal ci njiitul Serigne Bassirou Thiaw dugal nañ cinq cent onze mille Louga ci njiitul Moustapha Bassirou Mbuub dugal nañ deux millions sept mille sept cent Mbour ci njiitul Serigne Mor Sorang dugal nañ un million cent quarante deux mille sept cent Tawa ci njiitul Soxna Ngoy kebe dugal nañ cinquante mille Fatick ci njiitul Soxna Fatou Fall Mbaye dugal nañ vingt cinq mille Tambacounda ci njiitul Serigne Adama Niass dugal nañ quatre cent soixante quinze Bakkan la man ci njiitul Soxna Njaba Ndiaye dugal nañ cinquante mille Mudéeri ci njiitul Serigne Bassirou Ndiaye dugal nañ cinquante mille Ndiawara ci njiitul Serigne Cheikh Anne dugal nañ cinquante mille versement anonyme mooy yi nga xamante ni dañ koy dugal ci compte yi rek te duñu xam ñu ko dugal toll na ci sept cent quatre vingt dix mille Daaru Salaam Diouf ci njiitul Serigne Youssou Thioune dugal nañ sept cent quatre vingt mille Casamance ci njiitul Serigne Modou Khary Guèye dugal nañ six cent un mille huit cent tournée yi nga xamante ni commission massification dañ koy def ci njiitul Serigne Bara Mbacké ci mois d'avril bi demoon nañ Mboro ak Daaru Salaam Diouf collecté woon nañ fa lu toll ci deux millions quatre cent soixante cinq mille xombal ci njiitul Serigne Mbaye Faye dugal nañ quatre cent mille kon lii mooy li nga xamante ni moo dugg ci compte Touba ci kanam jóge ci biir réew mi maanaam ci zone nationale bi suñu ko boolee day tollu ci quatre vingt quinze millions deux cent mille trois cent quatre commission santé am na sec bu ñu génne woon mu tolloon ci quinze millions sept cent sept mille ñu delloosiwaat xaalis bi ci compte bi mu toll mu toll ci quinze millions sept cent sept mille machines yi nga xamante ni mooy machine Touba Kanam yi euh, am na versement location bu ci dugg mu toll ci deux cent vingt cinq dañuy dem bitim réew ci diaspora bi États-Unis moo ci jiitu ci njiitul Serigne Sohaibou Seck dugal nañ deux millions sept cent vingt sept mille Uruguay ci njiitul Serigne Ndongo ñan dugal nañ cent dix sept mille trois cent Argentine dugal nañ cinq cent mille suñu boolee li jógee ci continent bu Amérique day toll ci trois millions trois cent quarante quatre mille trois cent ñu dem ci continent Europe coordination bu Italie dugal nañ trois millions huit cent vingt cinq mille cent vingt cinq francs bu ko defee Espagne coordination bi dugal nañ cent vingt huit mille cinq cent soixante dix coordination bu France dugal deux cent soixante quinze mille cinq cent suñu boolee li jóge ci continent bu Europe maanaam zone Europe bi day toll ci quatre millions deux cent trente mille cent quatre vingt quinze francs ñu dem ci zone bu Afrique continent Afrique Côte d'Ivoire moo ci jiitu ci njiitul Serigne Mor Fassa dugal nañ quatre cent soixante onze mille neuf cent soixante quinze Togo ci njiitul Serigne Assane Amar dugal nañ cent dix neuf mille Cap Vert ci njiitul Serigne Abdoulahat Amar dugal nañ deux cent vingt mille Guinée Bissau ci njiitul Serigne Modou Atta Seck dugal nañ un vingt deux mille. Mali ci njiitul Serigne Alioune Wade dugal nañ 1 million 200 mille Afrique du Sud ci njiitul Serigne Mor Dieng dugal nañ 286 mille suñu boolee li jóge ci continent bu Afrique day toll ci 3 millions 318 mille 975 suñu boolee li jóge ci zone nationale bi maanaam biir réew mi li jóge ci yeneen continent yi bu Amérique bu Europe ak bu Afrique. Euh, ak li jot dellu si ci compte yi kon compte Touba Ca Kanam yi li ci dugg ci mois d' avril day toll ci cent vingt deux millions zéro quatre vingt et un mille huit cent cinquante huit cent vingt deux millions quatre vingt et un mille cinquante huit moo dugg ci compte Touba Kanam ci mois d' avril. su ko defee li nga xamante ni moo génn ci compte yi ci mois d' avril maanaam jëm ci liggéey yi. dañ koy tàmbalee ci barabu fajukaay bi nga xamante ni Touba Ca Kanam mi ngi koy def ca Touba Aliya liñ ci jot a génn toll na ci deux millions six cent quarante quatre mille deux cent cinquante euh, bu ko defee euh, siège bu Touba Ca Kanam maanaam màkkaat mi nga xamante ni fa la Touba Ca Kanam war a dem euh, te ñu koy liggéey liñ ci jot a def ci mois d' avril bi toll na ci dix huit millions cinq cent quatre vingt deux mille bu dee kër kàbbu terrain ba fa Touba Ca Kanam am muy terrain bu xaw a mag liggéey yi ñu fa doon def génn nañ ci sept cent cinquante mille barabu fajukaay bi nga xamante ni moo nekk Touba Sam liñ ci génne toll na ci deux millions cinq cent trente mille deux cent caisse d'urgence yi nga xamante ni dañ koy génn maanaam liggéey yi jëm ci chantier yi te léeg-léeg am yuy yàkkamti du mën a topp procédure finance bi ñu génneel ko benn caisse boo xamante ni commission des finance moo koy saytu génn nañ ci ñaari yoon cinq million ci mois d' avril bi mu toll ci 10 millions. poste de santé mooy barabu fajukaay bi nga xamante ni Touba Ca Kanam ma ngi koy def ca Madiana liñ ci génne toll na ci 2 millions 796 mille. base 3S bi nga xamante ni machine pavage bu tubaaj Ca Kanam bi fa la nekk ak yeneen bagage yi liñ ci jot a génne ci. mois d' avril bi liñ liggéey ñu fa doon def toll na ci un million deux cent cinquante mille commission bi nga xamante ni mooy commission environnement euh, nga xam ne ñoo yore wàllum garab yeeg yu ak lu jëm ci assainissement bi euh, curage yi nga xamante ni ñi ngi ko doon def di waajal nawet bi ak yeneen liggéey yi génne nañ ci mois d' avril ci lu toll ci un million neuf cent quatre vingt huit mille six cent quarante commission scientifique et culturelle nga xam ne ñoo yore wàllum daara yi nga xamante ni Touba Ca Kanam ñu ngi koy taxaw moo xam daara tànneef yi ñuy tabax ak réfection yi ñuy defal yenn sëriñ daara yi liñ ci génn ci mois d'avril toll na ci onze millions trois cent quarante et un mille commission logistique nga xam ne moo yore wàllu oto yi Touba Kanam yi ak carburant beeg yu ni mel liñ ci génne ci mois d'avril toll na ci sept millions sept cent trente et un mille sept cent trente cinq ci yoonu Daaru Rahmaan bi Touba Kanam am na fa tool bu muy tàmbalee liggéey ba nekk ci traitement baak yooyu ak tabax yañ fa doon def ci mois d'avril bi génn nañ ci huit millions dix mille trois vingt cinq euh, commission massification euh, génn yi nga xamante ne ñu ngi koy def di massifier euh, ci mois d'avril bi génn ñu ci doon def frais yi ñu doon def toll na ci six cent quatre vingt quatre mille commission bii di sociale ñëpp xam nañ ne sociale ak jaayante la ci biir jaayante wu Touba ci kanam bi waaye Touba kanam da ciy jàpp ci di di jàppale commission bi pour yi ñuy yi ñuy yittewoo nga xam ne euh, mel na ne xaw naa bari ba jéggi dayoo ci mois d'avril bi ak waajtaayu korite gi Touba ci kanam génne woon na ci 9 cinq 500 jox leen ko li nga xamante ni mooy charge fixe yu Touba ci kanam ak lu jëm ci salaire yi ñu ci génne ci mois d'avril toll na ci 15 millions 680 80 mille 15 millions 680 mille corps de contrôle yi nga xamante ni ñoo nekk ci Touba ci kanam mission yi ñuy def am na frais yu ñu ci génne woon ci mois d'avril toll ci 455 mille commission bi nga xamante ni mooy commission éclairage public ñëpp xam ne ne Touba ci kanam at mu jot day indi ay làmp ci dëkk bi at mi indi nañ 5000 lamp euh, ba commencé nañ ko monter yenn frais yi nga xamante ni ñu ngi ko ciy def ak euh, frais de dédouanement bi nga xamante ni defoon nañ ko bi ñu génne conteneur yi toll na ci 4 millions 979 mille 987 commission administrative nga xam ne moo yore yenn bagages yi nga xamante ni Touba Ca Kanam da koy soxlawoo ci administration bi liñ ci génn ci mois d'avril bi toll na ci cent quatre yi nga xamante ni yenn banques yi ñu ngi koy dagg ci yi diñ ci dagg ci mois d'avril toll na ci cinquante deux mille neuf cent soixante kon loolu mooy li nga xamante ni moo génn ci kees Touba Ca Kanam ci mois d'avril toll ci cent sept millions cent trente-huit mille zéro soixante kon bu ñu jëlee li nga xamante ni moo nekkoon ci compte Touba Kanam ci fin mois de mars tolloon ci 369 millions 153 mille 252 su ñu ci boolee li nga xamante ni moo dugg ci compte yi ci mois d' avril bi toll ci 122 millions 081 mille 858 day nekk 491 mille 231 mille 110 francs su ko defee ñu génn ci li nga xamante ni mooy dépenses yi décaissement yi ñuy def yu jëm ci liggéey yi toll ci million millions 138 mille 075 kon li ñuy jàpp ci fin mois d' avril li nekk ci compte Touba ci kanam mi ngi toll ci trois cent quatre vingt quatre millions zéro quatre vingt dix sept mille zéro trente cinq francs trois cent quatre vingt quatre millions zéro quatre vingt dix sept mille zéro trente cinq francs loolu moo nekk ci compte Touba ci kanam buñ boolee compte yëpp ci fin mois d' avril ñuy sant ak jaajëfal mbooleem collecteur ak collectrice yu Touba ci kanam ak mbooleem taalibe yi nga xamante ni dugal nañ seen ñaq ci Touba ci kanam waaye di jaajëfal commission finance bi nga xamante ni ñoo yore saytu bi ak sous commission gestion des fonds bi nga xamante ni ci njiital Soxna Fatou Ndiaye ak euh, waa comptabilité bi yëpp ngeen jëf. ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu indil ma fi nga xam ne. lépp lu ma bëgg a yónnee ci Touba ci kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci compte Touba ca kanam jërëjëf Serigne Touba.